asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw bi ñu sant yàlla bu baax ci xéewal yu bari yi muy yi ñuy xéewale te weer wi ñu nekk bokk ci weeru koor sant itam sëriñ bi Cheikh Ahmadou Bamba Abdullahi wa Xadimi Rasuli ñu ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo teew ci barab bi ak mboolem ñuy topp waxtaan yi ak fu ñu ko mën a toppe di jiital ci nuyoo yi ak sant yi itam sëriñ Muntaqa mi nga xam ne moo fi nekk toog fi toogaayub sëriñ bu mag bi di ko ñaanal suñu boroom yokkoo fanam lool mu dund comme niñ ko koy ñaanale murit yëpp dund goo xam ne day doon xar baax boole kook wér gi yaram boole kook itam sottal mboolem naal yi nga xam ne mu ngi koy naanal sëriñ bi te ñu ànd moom lépp ci barkeb sëriñ bi di sant itam ak nuyu bu baax a baax mbokk yi nga xam ne ñooy taxawee liggéey bu am solo bii di daayiratu muxaddamatul xidma di ñaan suñu borom gën a dëgëral daayira bi gën koo taxaw gën koo jëme kanam ba mboolem yéene yi ñu am ci barab yu sell yi ñu mën koo mottali defe ko niñ ko bëggee ci barkeb sëriñ bi di sant itam bu baax suñu gan gu tedd gi nga xam ne moom la ñu ci waxtaan wi tey di docteur abdullahi Jaxate ñu mu ñëw ngir waxtaan ak ñun ci thème boo xam bu am am solo la boo xam ne itam jamono soxla na ko lool waaye rawatina euh, mbooloo muy mu mel ne mbooloo mi nga xam ne ci lañu nekk di ci askanu muy mbooloo murit xam naa bu ñu ci ñëwee incha allah dina ci waxtaan wi dina gën a leer ci aajewoo goo xam ni aajewoo nañu ko tomb bi mu bëgg a waxtaaneek ñun tey mu waxtaan ak ñun nag ci kon tomb bi mooy al waqful islaami fi Sénégal wa afaq tatwirihi fi l mujtama al muridi te mooy rek waqf naka la mel tey ci Sénégal li nga xam ne moom lañuy ñuy woowe waqf te dina ci ñëw xam naa ci baat bi ak mooy lan tolluwaayam ci Sénégal lan la waaye ëllëgu yokkuteem itam ci mbooloo mii nga xam ne mooy mbooloo murit naka la ci naka naka lan mooy ëllëg ëllëgu yokkuteem wala boog naka la yoonu murit mën a jouer ab rôle boo xam ne dana ko jëme kanam dana ko yokk moom mi koy moom mi nga xam ne moom la ñu àndal nag waxtaan bi muy Abdullahi Jaxate mi ngi ay am njàngam lu ci gën a bari mi ngi jëmoon rek ci njàngum diine ak la ci aju def itam doctorat boo xam ne mi ngi ko def ci ci ci fiqh ak ci économie islamique defe ko ci Maroc gannaaw booba ba tey itam ay yëngoom lu ci bari ci wàllu économie ak finance islamique la jëm euh, mu ngi nekk ci ci ci banqaas bu ñuy wax promise di promouvoir lépp lu jëm ci microfinance islamique ci état bu Sénégal yoré ko di yëngu en tant que membre ci haya shar'iyya ba nek itam ci fiñu wax haute autorité di waqf nga xamné li ñuy woyé waqf tay li ci Sénégal jotaguna am ci lu nosu top ci état bi loola ñom ñokoy saytu bankas bobu ñu wax haute autorité di waqf mu nefa nak difa yëngu ci lepp lu jëm ci walu juridique ak partenariat lolu xamna kon day mel ne thème bii ñu ko jox lu mu xam la lu mu war a mën a waxtaane la te mooy waqf ci Sénégal lan mooy tolluwaayam ak ëllëgu yokkuteem itam ci yoon wi naka lañ ko mën a gisee xam naa du ñu ci guddal dañ koy bàyyi moom mu ñëw ci waxtaan wi waxtaan ak ñun ci tomb boobu su defee rafet nañ jox ci ne daañu ci déggee loo xam ne dana mën a doon bind ñu dolli ko ci lañ ci xamoon waaye itam dana gën a mën a leeral yoon woo xam ne des na ci mën a jaar gën a mën a suqali loolu nga xam ne moom la ñuy woowee waqf incha allah kon docteur ñu ngi lay nuyu lu bare bari di la bàyyee kàddu gi incha allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه mbokk jullit ñi ñu leen di nuyu di leen sant di jiital ci nuyoo bi kilifa gu tedd gi muy a cheikh Mouhamadul Muntaqa yàlla nañu ko yàlla sàmmal guddal aw fanam may ko wér ak aafiya te naal yi nga xamante ne moom la sos yàlla mottali ko ko insha allahu rabbul alamin euh, di sant bu baax waa muqaddamatul xidma ci euh, opportunité bi ñu ñi may ngir mm, waxtaane thème bu am solo boo xamante ne nii dafa aju ci wàllu waqf ñuy toog fii nekk ndaw ci bànqaas bi nga xam ne moom lépp lu jëm ci wàllu waqf ci senegaal moom moo ko yore ñu koy woowe haute autorité di waqf mu nekk ab bànqaas boo xamante ne nii dañ ko fee teg ngir lépp luy waqf ci senegaal mu ànd ci ñi ko bëgg a def gunge leen ci danañ ci ñëw bu baax a baax a baax te mu tey bi mi ngi aju ci mbirum waqf ak nees ko mën a taxawoo ba am njariñ mën a am ak jeexintal mën a jariñ rawatina ci yoonu murit danañ ci taxaw ci ay point ci ay tomb waxtaane lan mooy wax xëy na sax ñu bari réere wuñ ko waxtaane it li nga xamante ne nii ci senegal xam nañ ko tey muy loi boo xam ne ñëw na pour taxaw lépp lu jëm ci wàllu waqf waxit luy gunge luwaa boobu muy li ko jëmmal muy li nga xamante ni nii banqaas bi nga xam ne mooy autorité di wax lan mooy ab taxawaayam lan la ñuy xaar ci moom waxtaane it li ñuy tudde lu am solo ci doxalin wu bes li ñuy tudde fonds waqf public monétaire muy lu am solo lo xamné ne na ci waxtaane ak nees ci mëna jariño waya waaye danañ taxaw xol djégo yu am solo yo xamanteni ni amna ci yoon wi tambalé ko ci isbu tarqiya mu tuddu waqf isbu tarqiya ñi nga xamanteni ni ay daaw ci atum ren mii rek ci weeru koor gi def nañ ci jéego yu am solo lépp loo xam ne am nañ ko rek ci ay bien ñi def ko waqf waxtaane it aussi li nga xam ne Touba ca kanam mël na ko ngir am ko taxawaay ci wàllu waqf ak fu mel na mu xaddamatul xidma liggéey bu am solo bi bii muy def ci jumaa ji nan la mën a jariñoo ci wàll waqf <clears throat> loolu mooy tomb yi nga xam ne fas yéene nañ ko waxtaane ci tënk ku ne xam na ne yàlla subhaanahu wa taala bi ñu baaxee diiney lislaam muy diine joo xam ne suñ boroom dañu ko wàcc da ko wàcce jaarale ko ci alxuraan ak sunna alxuraan ak sunna di jàngale di jàngale di joxe diine ji noo xamante ne nii da leen di won naan leen <clears throat> ay valeur laa leen indil ak ay idéologie ay xalaat ak ay gisin yoo xamante ne nii saasu leen ci tënkoo ngeen mën a am dundu gu dal am dundu gu teey am falaax euh, ci àdduna ak alxuraan googu noonu lépp lu ñu indil ci ay tasawuraat lay doon ay principe ak ay grande ligne moo tax nag ñun jullit ñu suñu warteef mooy ñu xool njàngale moomu mu indi nan lañ ko mën a nose jëfandikoo ko ba nga xamante ne nii lépp lu ñuy xaar ci suñ dund gu teey ñi mën ko cee am kon nag loolu dafay dellu ci ñun ñuy dund ñun jullit ñi ñi mën a teg ay yoon teg ay xàll ay politique ngir que lépp loo xamante ne rek jàngat nañ ko ci alxuraan ak sunna ci ay principe ñi mën koo doxalee ca anam ba mu gën a jub ak anam ba mu gën a yell ci loolu yàlla bi mu wàccee alquran ku ne xam na ne lu jëm ci wàllu nooy jaamoo sa yàlla leer na waaye nooy doxalee sa dunduk àdduna sa wàllu koom sa wàllu dem ak dikk loolu it da cee wax lu bari ci loolu boo gisee yàlla am na loo xamante ne ci wàllu liggéey nan ngay defee ba lépp looy am mu lew waaye it boo waree joxe azaka gi nga xam ne farata la nan nga ko war a ak yan charte ak yan lan moo la war a tënk asaka nag bu nekkee na loo xam ne farata la ci jullit bi mu koy génn bu matalee charte yi wax waqf nag moom dafa mel ne naafila la ci sa alal bu fekkee ne azaka faratala la waqf moom kon naafila la kon waqf googu doonu dañoo gis ne dëkku jullit ñi lu am cosaan la ci lislaam ndax ku ne xam na ne bërëb yi njëkk ci lislaam muy muy muy muy masjidu Quba muy lépp loo xam ne julli ñi taxawal nañ ko rek lépp dañ koy jàppee comme waqf dañuy wax naan amul benn saxaaba boo xam ne amu deful waqf ci dundam amul benn saxaaba boo xam ne deful wax ndax xam la nekk ca njariñal wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko soññee saxaaba yi daan jël li gën a riche ci seen alal daan ko jël def ko waqf ku mel ne Umar ibn al-Khattab biiru xaa googu noonu bam ko bam ca dalee daan ne ko lii de mooy li gën a riche ci li ma am lan nga ma ciy digal mu daan ne ko ah bu la neexee de mën nga koo def waqf loolu di continuer jamono di dox ba colonisation bi ñëw ñi gis ne wàllu waqf dellu na gannaaw bu baax ndax colonisation bi dafa xam ne waqfkat bu continuer jullit ñi kenn du leen mën a dékku mu faagaagal lépp loo xamante ne nii ay effort la ay institution la yoo xam ne taxawal nañ ko ci wàllu waqf bi loolu jàllee ñiy dem jamono di dem di dox bay jox dëgg di lislaam ci ay jàngaleem yum indi ngir nit ñi mën a am dund gu baax ñi dem ba suñu état yi di góorgóorlu ci politique sociale ngir wàññi ndóol nit ñi dund ci jàmm dëkk bi nekk ci tawfiix ci naataange waaye ñi gis ne lu état yi état yu góor góorgóorlu day des ñi ne kat amoon na njàngaleem lislaam moo xamante ne nii dañ koo fàtte wala dañ koo sàggane mooy lan mooy waqf waqf am taxawaay boo xamante nii lu état mënul wala lu am réew mënul waqf moom moo koy taxawee ci loolu ci ab benn mu muarrix benn historien turc ku tudd Bahauddin Yediliz daal di tënk benn wax ne institution waqf kat mooy institution bi nga xam ne nit ki day gane àdduna ci dispensaire wala ci hôpital boo xam ne waqf moo ko defar di tëdd wala di jariñoo wala di jëfandikoo wala di xéewloo ci loo xamante ne nii ci waqf moo ko meññi di jànge ci daara ci école wala ci bërëbu tàggatukaay boo xamante ne nii waqf moo ko taxawal nit ki dem ba mën bay jàngale di jàngale di am saleer boo xamante ne nii fu moo koy fay ba sax bu tawate ci hôpital waqf wala ci dispensaire bu waqf tabax mom mo koy faj naka nonu yit buñ koy jullee ci jakka jo xamanteni ni alal waqf lañ ko tabaxé naka nonu buñ koy jébal boromam ci armel yo xamanteni ni armel waqf la kon li day jàngale ne waqf moy lo xamanteni ni nii dafa ndar kep lepp lo xamanteni ni rek lu doomu adama bi meuna jariño la lu meuna soxla wola kon loolu noonu dafa dafay wone njariñu institution waqf wala njariñu li nga xamante ne nii mooy waqf ba nga xamante ne nii dañ ne li ñuy tuddee développement communautaire te ku ne xam na ne fii ci Touba Touba ca kanam am ci taxawaay bu rëy waqf da daan taxawoo lépp mooy yi ma tudd nii muy hôpital muy dispensaire muy jàkka muy bërëb boo xam ne sax nit ñi danañ fa féexloo ba nga xam ne nee nañ li ñuy tudde état central ca jamono yooya nekkul woon lu dul koo xamante ne nii moom li nga xam ne mooy payoor yi ñi nga xam ne ñoo daan liggéey ci fonction publique ak garantir li nga xam assurer sécurité bi nga xam ne kenn mënu ko cee wutu état central boobu loolu la doon def waqf demoon na sax bay fay juge yi xudaat yi ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci mahka hakim charan yi mooy tribunal yi daan attewoo ci wàllu diine ngir lan ngir ñi am indépendance totale kon waqf boo xoolee ndar kepp na lépp loo xamante ne nii nit ki dafay jonjoog moom ci ak dundam jamono di dox nag état yu bari di góor góorlu ngir ñoŋal ko taxawu ko jàppandal képp koo xamante ni nii yaa ngi koy dox sawaar ñu gis ne réew yu bëree bëree bëri góor góorlu nañ ci am na réew yoo xam ne dañ ko wutal ministère spécial fu mel ne Maroc gii ñu gën a jege am ñoo xamante ne nii ministère bi nga xam ne moom lañ dénk shu'un islamiya lépp lu jëm ci wàllu diine ministère boobu noonu moom moo ko yore waale ay secrétariat général al amaan al amalil awqaf comme ca Koweït ak feneen ak feneen kon nga gis ne tey ci jamono dañoo gis ne njumtuwaay bu am solo la ngir nit ñi dund ci naataange ak ci xéewal Sénégal def jéego yu am solo ci année 2015 jéego yoo xam ne suñ Mauritanie suñ dëkkandoo bii di Mauritanie sax ñoo ko ci gën a avancé ndax boo demee Mauritanie li ñuy tuddee code bi nga xamante ne nii moom mooy taxaw lépp luy jàkka ak li ñuy tuddee code des obligations et des contrats loolu ci ay article lañ jël yoo xam ne nii dafa aju ci wàllu waqfu dugal ko ci code yooyu ba nga xam ne dafa tasaaroo léegi nag ñun Sénégal ci 2015 mu am benn décret boo xam ne dafa génn mooy décret 2015 bi aju ci waqf daa di ne dafay teg benn loi boo xam ne képp ku bëgg a defati waqf dañ ciy tënku te boobu noonu ci lépp ci charia islamiya lañ ko tëgge ci lañ ko ci lañ ci sukkandiku muy loi bu am solo boo xam ne dalay faram fàcce yow mi bëgg a def waqf atte yi nga war a respecté comme ni ko charia waxee ak jëm li nga bëgg a jëmmal def ko wax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ca war a jariñoo waqf boobu noonu ku nekk ko mën a def li loi bi wax nit mën na koo def waaye li ñuy personne physique waaye li ñuy tuddee personne morale ci suñ dundinu tey nit nit nit nit jóob mooy ab société wala ab entreprise mën na koo def kon mbir la moo xamante ne nii lu am solo la ci réew mi fii nga xamante ne état Sénégal def nañ ko fi ci deux mille seize deux quinze deux mille seize ñëw. ñi taxawal li koy jëmmal mooy li ñuy tudde haute autorité di waqf benn décret génn ci 2016 boo xamante ne nii dafay taxawal mooy banqaas bi nga xam ne mooy yore lépp lu jëm ci wàllu waqf ci senegal ndax bànqaas boobu noonu dafay taxaw ci lépp loo xam ne état Sénégal bëgg na koo def ci xeex ndóol awale ko ci waqf taxawu daara yi awale ko ci waqf taxawu néew di joole it awale ko ci waqf fexe ba nit ñi mën a jëfandikoo ndox mu sell awale ko ci waqf fexe ba nit ñi mën a am seen moomeelu bopp def seeni liggéeyu bopp seeni activité bopp moom seen bopp awale ko ci wàllu waqf danañ ci ñëw ci kanam kon jéego yu am solo mooy moom la état Sénégal def ci wàllu woowu ba nga xamante ni nii lépp lu jëm ci wàllu yiw ak ku bëgg a def lu baax ci wàllu waqf nga awee ko ci autorité di waqf léegi nag lan moo xaajale waqf ak sarax ku ne xam ne ne sarax mooy loo xam ne da nga koy jël joxe ko ñu consommer ko mu jeex waaye waqf buñ ko waxee mooy loo xam ne danga nga koy jëmmal sàmm jëmm ji muy wéy waaye da ngay saraxe meññit mi mooy ne da ngay taxawal loo xamante ne nii dangay sàmm jëwu ji jëmm ji muy dox waaye la cay juddoo ci meññit da nga koy saraxe kon loolu mooy wane ne li ngay taxawal da nga am yéene muy wéy ba faaw ba nga xamante ne njariñ li day wéy ba euh, toujours ñëpp di jariñ ba nga xam ne sax doomu aadama bi bu dëddoo fa mu tëdd njariñ la da ko fay fekk te loolu noonu yaakaar naa ne lu nit di daw ci dund gu gàtt gii loolu gënu koo ëpp sol ndax tey kum doon yow sa compte bancaire boo jékki-jékkee daj ab message gis loo xam ne ñëw na da ngay bëgg dangay kontaan muy sa Wave muy sa Orange Money lu mu mën ci doon kon ngalawaay ka nga xamante ne nii dëdd na àdduna tëdd fa mu tëdd ay yiw di ko fa fekk ci loo xamante ne nii taxawal na ko ci àdduna mu bàyyi ko fi dem ñi koy sàmmal ñi koy sàmmal loolu dafa mat a bàyyi xel lu tax ndax tey li tax loi bi ñëw mooy nit ki nga xam ne def na waqf teg ay chartam ne nii laa ko bëggee nii ñoo ciy jariñu haute autorité di waqf bii moom moo am taxawaayu di ko sàmmal loolu ba nga xamante ne nii kenn du jóge fële ñëw teg ci loxo kenn du jóge fële ñëw bëgg koo aakimoo wala dara kon li nga xamante ne nii mooy haute autorité di waqf moom ab banqaas la boo xamante ne nii dafa indépendant dafa moom boppam banqaas la boo xamante ne nii dafa am li ñuy tudde autonomie administrative mooy ne moom ci tëral ci ni waqf di doxee moom dañ ko fee teg ngir mu mën a doxal waqf ca anam ba nga xam ne moom moo gën a mucc ayib léegi nag lan mooy mission yi nga xamante ne moom la ñuy gën a xaar ci haute autorité boobu noonu ci tënk haute autorité boobu noonu benn bànqaas la boo xamante ne nii moom la état Sénégal jëmmale wax boole kook beneen décret ci 2017 boo xam ne ci la teg beneen commission boo xam ne li autorité haute autorité boobu di defal moom moo koy saytu di ko càmbar di xool ba xam doxalin wi jaar na yoon wala déet ndax lan moo tax ngir que lépp jaar ci yoon lépp leer commission boobu noonu de supervision boobu noonu mi ngi tënkoo ci fukki membre ak ñaar yoo xamante ne nii. liñ naan l'état central mooy ministère yi nga xamante ne nii ñoo gën a am solo ci lu mel ne ministère des finance bi nga xam ne autorité di wax ci moom lañ ko lënk ak ministère de l'éducation nationale ak ministère bi nga xam ne moo yore lépp loo xam ne moo yore ci wàllu ndaw ñi ak ak ministère de l'éducation bi yore wàllu daara yi ak ay experts ñoo xamante ne ci wàllu finance islamique wàllu fiqul muamalat mooy droit islamique des affaires ak lépp loo xamante ne nii aju ci ñoo xam ne dañoo bokk ci société civile ñooñu ñoom ñoo nekk ca commission booba di xool li autorité bi di wax di di doxal ndax dëppoo na bu baax a baax ak mission yi ak li nga ko sant ak yu demee noonu autorité di wax li ko tax a jug mooy lépp luy wax public dafa am ñeenti xeetu waqf sénégalais bi am na possibilité def ñeenti xeetu waqf dafa li ñu tuddee waqf public état rek moom moo ko mën mooy waqf boo xamante ne état moo koy taxawal ci xaalisu état di ko saytu la ca génne état ne kat lii kat danaa ko def ci ay daara wala danaa ko def ci loolu exemple bi ñu ciy joxe mooy li ñuy tuddee waqf daara moderne waqf la boo xamante ne nii mi ngi toll ci vingt millions de dollars boo xam ne banque islamique de développement moo ko financé mu nekk immeuble seize étages lépp lu ca génne ñu ngi koy dugalaat ci daara yi. loolu noonu ab projet la boo xam ne pour l'instant nii ñu ngi koy taxawal beneen xeetu wax mooy waqf privé nit ku nekk am nga posibilité def sa waqf moom la ñu tuddee al waqful xaas wala al waqful ahli wala al waqfu zurri mooy lan nit ki kat danaan fu bi kat dama koy taxawal ngir sama njaboot ëllëg ku ndóol dab wala ku dem ba jamono naqari wala dem ba bu dee soxna ci ñenn ci njaboot gi ku sa say naqari wala dara ma taxawal ko léegi nag. ñoom ñooñu rek ñoom ñoo cee mën a jariñu dafa am benn saxaabi bu tudd Zubayr na al-Awwam dafa fu woon benn ci ay alalam daan ne lii kat maa ngi koy waqfal ci sama doom yu jigéen yi ku sa say naqari te amoo foo jëm fii nii ngay dellu si waaye ñi nga xamante ni ñi ngi ci seen sëy am dund gu dal ñoo ñooñu noonu loola concerné wu leen kon waqf <laughs> lii mooy waqf privé kon ab privé moo koy def am na lu ñu tuddee àllu waqf zaatil manfaa la amma mooy waqf intérêt public mooy waqf boo xam ne jullit bi da koy def lépp lu ca génn ñu koy dugal ci loo xamante ni nii askan wi la amal njariñ beneen wa ñeenteelu waqf mooy al waqful mushtarak mooy mix boo xamante ne nii dama naan kat lii ma taxawal def ko waqf lenn li ci sama njaboot la jëm li ci des nag ci maslaha la amma la jëm kon ñeenti xeeti waqf yooyu moom moo am ci tëraliinu waqf fii ak doxaliinu waqf fii ci senegaal Sénégal waqf nag dafa nekk domaine bu yaatu lépp loo xamante ne nii mënees nañ faa investir mënees nañ koo taxawal muy meññi muy meññi ci anam bu mu mënti doon ndax dafa am ñeenti xeetu dafa am waqf boo xamante ne nii bu la neexee nga ne sama waqf bi de dama koy taxawal mu wéew yi ba faaw bu la neexee nga ne kat waqf bi kat danaa ko taxawal waaye ci fukki at walla ci juróom-ñetti at loolu it mën naa nekk am na xeetu waqf boo xamante ne nii waqf mubashir lañ koy tuddee mooy waqf direct boo xamante ne jëmmi waqf bi ñu tabaxal ñi ciy jariñu ñoom directement lañ ciy jariñoo am waqf boo xamante ne waqf xayrul mubashir la mooy waqf bi kat li muy meññi moom mooy jariñe mi ngi mel na tey ku tabax këram daan na lii dama ko jagleel képp koo xamante ne nii da ñëw réer wala da ngaa ñëw amoo foo dem loolu nit ñi dañuy jariñu ci jëmmi waqf boobu beneen waqf bi xamante ne nii dama koy tabax dama koy taxawal waaye li muy jur loolu noonu ci la nit ñi di jariñoo mi ngi mel ne ko am immeuble R plus am daan ne lépp lu ci génn lii nii kat dama koy jagleel daara yi wala lii nii kat way laago yi wala lii nii kat néew di doole yi loolu yit xeet la ci waqf fii am na waqf boo xamante ne nii lu sax lay doon mooy kër am na waqf boo xamante ne nii te loolu lañ gën a xam waaye am na waqf boo xamante ne nii luy dox wala luy luy luy yëngu mooy almanquul loolu it mënees na koo def waqf mën nañoo dem ba fi def ko service koo xam ne ab dentiste la mi ngi fii ci Touba ne weeru safar fu mu terootee sama service bépp ku ñëw ma faj la te yàlla tax def ko waqf loolu la ñuy ful man manfaa jamono yi may wax ak yéen ni waqf amee doole ci àdduna ci weeru koor dëkk yu bëree bëree bëree bëri cabinet ya fa nekk di defee ay conseil ci wàllu waqf dañoo def ay numéro téléphone gratuit ci koo xam ne bëgg ngaa bëgg nga ñi taxawu la ci waqf loolu ñoom dañoo def waqful man fa kon waqf médecin bi mën na koo def mécanicien bi mën na mécanicien bi mën na koo def képp koo xam ne yaa ngi yëngu yow mën ngaa waqf sa temps waqf ab service boo xam ne mën nga koo rendre askan bi kon waqf bëri na lool ci anam buñ ko mën a defee waqf mënees na koo def ci ay tool autorité di waqf def na ko ci ay tool yoo xam ne lu ci génne dañ koy delloowaat ci askan bi mënees na koo def ci ay immobilier te loolu moo gën a siiw moo gën a bëri mënees na koo def ci ay action yoo xam ne nit ñi am nañ ko ci seen entreprise yi mënees na koo def ci ay part wala ci lépp loo xamante ne nii ba ci sax droit d'auteur wala brevet d'invention wala tey jii nii loo xamante ne nii application la bu nit créer sax loolu mën na koo def waqf kon waqf domaine bu yaatoo yaatoo yaatu la kon bu fekkee ne zakat farata la ci sa alal waqf mënees na koo jàppe loo xamante ne nii kon loo xam ne naafila la ci sa alal li ñuy tuddee waqf dañ koo xame woon ci cosaan ci loo xam ne lu am lu mel ne terrain lay doon wala immeuble wala kër wala dara waaye fiqhul islaam yi dafa am nu mu tëddee noo xamante ne nii dafa do dafa dafa dafa am muru na am woyef am mën a mën a mën a dëppook jamono fu mu toll jamono day dox ba jamono yenn sa sallam sax am saxaaba yoo xam ne dañu doon waqf seeni jaasi ak seeni lépp loo xam ne jumtuwaay la ci wàllu guerre ñiy dem di dem di dem di dem di dem ci gannaawam ba li ñuy tudde al waqfu naq di am mooy waqfu monétaire mooy nit ki comme dañ ne waqf dañ koo taamoo xam ci lu taxaw sax comme niñ ko waxee ci ci ci biñ ko doon xamle ne mooy taxawal dara loo xam ne da ngay sàmm jëmm ji waye lepp lu cey meññee day jariñe kon deggin gogo don dañu jàppoon na waqf ke ci lu sax rek le mën don ci terrain ci souf rek waye tay gis nañ ne waqf gogo nonu dem na ba nek ci ay way ak ci bépp lo xamanteni nit ki mën na ko jëfëndiko ñi dem ba alal xaalis nit ki mëna jël def ko waqf ci nan la koy defee waqf ku ne xam na ne xaalis du taxaw luy circuler la waye nit ki mëna jël ne sama 300 millions bi ni kat dama koy def waqf nan la koy defee waqf dama koy jël placé ko ci ay investissement yoo xamante ne nii day nekk lu charia nangu la cay génne di ca meññee ma koy jël di ko def ci li nga xam ne man nee naa kat ñii ñoom ñoo ciy bénéficier bu dee waylaago yi mane ne ci waylaago yi bu dee jumaa yi ma ne entretien jumaa ji bu dee sax ci participer ci facture électricité jumaay Touba ma participer ci mais 300 millions yooyu moom day resté fam resté mais day liggéey di jur loolu la ñuy tudde waqfu monétaire danañ ñëw ci fonds waqf monétaire bi nga xam ne taxaw na fii ak lu mel ne muxaddamatul xidma tey nan lañ mën a taxawee la fonds bu mel noonu ba nga xam ne danañ ne électricité jumaay Tuubaa day tey jii nii ci lii lañ koy jëlee du tee alal ja ñi koy investir di ko def ci ay placement wakaala comme ci banque islamique yi waaye di ko def aussi ci ay euh, li ñuy tuddee ay action yu ñuy jënd ay action yoo wala ay sukuk xalaal yu bëree bëri yoo xamante ne ci ay anam yuñ mën a ñoŋale xaalis boobu loola ñu mën a taxawale loolu la kon gannaaw bi ñu xamee ne ñett ñeenti xeetu waqf la sénégalais bi mën a def mooy waqf boo xam ne dama koy def ngir sama njaboot ak waqf boo xam ne état rek moo ko mën a def ak waqf boo xamante ne dama naan liikat yi ngir askan wi la mooy wax waqf d'intérêt public ak waqf boo xam ne fu mushtarak la dama naan lii sama njaboot lee askan wi dafa am benn gëstukat bu seetlu ne États-Unis kat lu bëree bëree bëri ci ay borom alal seen alal yi du weesu santan ans ñi nga xam ne ci wàllu gestion de patrimoine ñi nga xam ne dañuy saytu yorinu alal doomu aadama dañ ne nit ki loo nekk nekk nekk milliardaire riche riche riche sa alal du weesu trois générations ñetti ak yàlla mooy ne say doom say sët say sëtaat foofu lay yem ak loo am am am alal loolu dañoo seetlu na ci àdduna bi ñi daan tudd ñépp ca troisième génération ba ci la seen alal yam waa ji seetlu ne ki nga xam ne dafay def lu mel ne genre waqf nekket sama njaboot lii laa leen fiy bàyyil waaye lii da ngeen koy taxawal ngeen ci jariñoo ba faw ma def ko waqf lenn li ngeen koy jël di ko saraxe wala ma am di ko def ci ay jàkk wala ci ay bërëb yoo xam ne nit ñi danañ ca jariñoo waa ji nee na dafa seetlu ne am na benn famille boo xamante ne ca États-Unis seen moomeel ak seen woomal diire na lu ëpp ñaari junni at te bi mu xoolee ba xool gëstu saytu lenn rek moo ko waral mooy ne ñoom dafa mel ne xeetu waqf masla waqf mushtarak mooy loo xam ne privé lay doon li ci des nekk lil maslaha la am ngir jariñ askan bi kon loolu noonu dañuy gis ne lu am solo la ba pare jamono ji dafa tëdd noo xam ne nit ki day dund ci kaw suuf am yéenay def lu baax di góorgóorlu ci dundam waaye suñ boroom mën na koo nattoo gannaawam gis-gis ba ak yéene ja ak xér ga ak yittegam amoon njabootam duñ ko am kon waqf ñëw loo xamante ne nii lu koy jàppale ci loolu la léegi nag nit ki nan la mën a def ba loola même bu dëddoo continuer wéy ba faw ndax dañoo xam ne li nga xamante ne nii mooy meloy waqf mooy loo xam ne day sax ba faaw di continuer ba pare bu ci nit ki xasee ba engage du ci mën a deltu gannaaw ba pare condition yam teg li ñu tudde shurutul waaqif dañ ko ko war a sàmmal imaam Malik yàlla nañu ko yàlla fayal mi ngi bàyyeekoo àdduna ci atum téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ci euh, atum hijriya mi ngi woon Médine bis ñëw mu ne waa ana awqaaf yi nga xam ne saxaaba yi taxawaloon nañ ko ndax sax na ne amul benn saxaaba bu deful waqf loo xam ne ni téeméeri at ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent mën naa wax ne lépp lu saxaaba yu defoon ci waqf daal di naax saay muy taxaw di naqarlu loolu ñu ne kon fiqhul islaam yi dafa ñëw indi ay règle ne nii lañ war a doxale wax charte yii lañ ko war a tege waaye lenn manqué mooy autorité suprême boo xamante ne nii mooy taxawu loolu mooy gunge mooy jàppale mooy sàmmal nit ñi seen awqaaf yooyu ñu xam ne defoon nañ ko kon bu ñu demee tey ba Sénégal loolu am fii ba nga xam ne nit ki bu taxawalee loola dañ ko koy sàmmal ba faaw loolu ak tawféexu suñu borom la ndax Mauritanie gii ñu gën a jege loolu sax ñoom amuñu ko ci cadre juridique amuñu sax autorité boobu noonu ndax comme ni ma ko waxee code bi nga xam ne code des mosquées ak code des obligations et des contrats ay articles yu wuute yu tasaaroo mom mo yore walu wax ci anam bo xamné organisé wu ñun nak comme yalla defal nañu ko dañ koy santé suñu borom dafa am benn góor gu baax gu tudd Ahmad Gora Diop 1910 1910 la taxawaloon benn waqf Ahmad Gora mi ngi dundoo nag ñoom maam As camara mag ñooñu nekkoon ca Ndar doon jàngale xam-xam ci yi sëñ bu mag bi maam As camara ku siiwoon la Ahmad a mooma dafa taxawoo taxawaloon benn jàkka tudde ko jàkkay bar ca jàkka jooja noona mu def ko waqf defaale ci wet gi ak kër gu am solo goo xamante ne nii day jur dara di meññi lu ca meññee di dugg ca jàkka ja di ko taxaw di ko entretenir ba pare ci biir jàkka ji amaale ay logement yoo xamante nii ñu am jafe yi dëkkuwaay mu dalal leen ci ca 1910 ba léegi 123 ans ci tey wax fu boobu mi ngi continuer lan moo tax Ahmad Góora yàlla tawféexale ko loola te jamono yooyu lu waa ci wax waqf amul Sénégal dara amu ci Ahmad Góora commerçant la woon bu yàlla mayoon tawféex diine ñor ko lool def lu baax ñor ko lool ñi xamoon ko lool Ahmad Góora nam def dafa dem connotaire ba. Dan na ko lii nii sama alalu bopp la maa ko moom dama koy jël def ko ci yoonu yàlla muy jàkk ji tudd minbar lu siiw la ca ndar ak kër gii nii nga xamante ne nii moom moo wër jàkk kër yi wër jàkka ji ak lee nga xam ne mooy euh, immeuble bee ma tabaxal taxawal kër ga ma taxawal ngir lu ca meññee di continuer di taxawu jàkka ji ak di taxawu loo xamante ne nii mooy jariñ jullit ñi ca 1910 ba léegi noonu loola ma ngay wéy saint mi ngi ci archive yi nga xam ne Ahmad Gora kon tawféexu suñu borom la yàlla nàmm xelam mu def loolu kon imam Malik bu ñu demee ba ci lu mat un siècle soixante ak juróom-ñaar fukki at ak lu teg mu naan ana aw xaaf yi saxaaba yi defoon lépp naax saay jamono yooyu noonu la ko metti kon mooy ne amul woon taxawaay bu baax Sénégal nag yàlla tawféex la ñu ñu am loolu ba nga xamante ne saa su doomu aadama bi demee ba taxaw def waqf waqf boobu noonu bu ko jëmmalee nan la koy jëmmalee dañ naan boo bëggee def waqf da ngay dem ci notaire yàlla dafa def bi lii taxawee am ay notaire yoo xam ne dañ leen a jël former leen ci nan la ñuy tawfiiqe nan la ñuy formaliser lépp loo xam ne jëm na ci waqf sëñ Moussa Mbacke ku ne xam na ko fii ci Touba bokk na ci ñi ci gën a am taxawaay bu rafet a rafet ci wàllu lu mel ne formalisation yi ak. di génne di def ay actes notariés taxaw na ci ñu bëree bëri ci senegal boo demee ci notaire bi jël ne ko kët lii sama titre foncier la masalan wala lii ab immeuble la bu ma taxaw taxawal bëgg koo def waqf dana ñëw ànd ceeg yow gunge la ci am na ay formulaire type yoo xamante ne notaire bi am na notaire bi acte notarié bi da koy bind ne yow diw sàngam yow yaay waaqif bi waqf tel nga bëgg a def ci titre foncier tel ak immeuble tel ak nangami nit ñoo ci jariñu wala bërëb sàngam wala nangam nga daal di junju loo xamante ne nii ngir njariñu askan wi la sëñ Moussa wala beneen notaire day jël loolu tënkal la ko ci kayit bu ñuy tudde acte notarié bu ca paree day jël copie boobu jébbal ko autorité di wax ñu xool ba xam lii nii dëppoo na ak churuut ak ni ko lislaam bëggee mu delloo ci defi commentaire delloo ko notaire bi notaire bi bu ci paree ba intégré commentaire yooyu noonu day jox ki nga xam ne mooy waaqif bi ki bëgg a def waqf benn koppi daal di jël beneen copie yóbbante ko ot autorité di wax ot autorité di wax moom dafa am benn registre buñ créé boo xamante ni képp ku def waqf ci Sénégal yow registre booba yaa nga fa yow nga garder sa copie dem sa wax fu boobu nga defal du kenn ku ko mën a jël ci yow du kenn ku ko mën a naxsaayal ba sax bu fi nit ki dëddoo ki def waqf des na ko sàmmal ndax dafa am ay mission yoo xam ne dañuy ñëw di superviser di xool nit ki li nga xam ne tegoon na ko ci ay charte ne nii laa bëgg mu doxee ko ndax loola ñi mu fi bàyyi ñuy doxal waqf ba ndax respecté nañ ko ba léegi wala déet kon loolu lu mat a bàyyi xel la kon sécurité juridique ximaaya xaanuunu yo googu noonu tey Sénégal yàlla taw fii xala nañu ja am ko kon ku def ku bëgg a def waqf muy waqf d'intérêt public wala sax nga bëgg a def waqf Euh, mustarak li ñuy tuddee loo xam ne pàcc bi day nekk public lii nekk privé am nga yombal gi am nga ku la taxawu am nga ku la jàppale ku la gunge moom nag mission wam du teg loxo ci li nga def déedéet moom chart ya nga teg la lay xoolal booy dund ak boo dëddoo loolu kon lu mat a tawfiqale ndax imaam Malik bu demee ba am yëg-yëgu naan ana awqaaf yi saxaaba yi defoon lépp nax saay kon loolu lu ko waraloon mooy amul woon benn autorité benn bànqaas boo xam ne loolu moo ko yore woon comme waxtu wi dañuy dab ñi ñëw rek ci tënk li ñuy tudde fonds waqf public monétaire doog a ñëw ci état des lieux li ñuy tudde waqf al waqfu naqdi ku ne xam na ne li ñu xamoon mooy taxawal ab bërëb jëmmal ab bërëb def ko wax waaye tey dem nañ ba nga xamante ne mën nañ ne fii kat commerçant Touba yi jël nañ 500 millions ne kat lii ab capital la boo xam ne dañ koy investir def ko ci ay placement ci banque yi banque islamique yi nag loo xam ne day dëppoog yoon charia lépp lu ca génne ñu ne facture électricité jumaay Tuubaa moo koy assuré haute autorité di wax da cee def ab jéego woon ko sénégalais yi li ñuy tuddee fonds waqf public monetaire fonds waqf public monétaire bi ni muy demee mooy dafa jël ab xaal ay xaalis investir ko ci banque yi def ko placement wakala amit yene yi def ci sax ci fonds d'investissement islamique ak ay sukuk la ca jot genn ci 2022 gi ni ci 2023 gi ni ñaar fukki jund yu ndonga dara ci senegal jël nañ ci seen couverture sanitaire yoro leen lepp lo xamne ne seen wàllum paj la fonds ba dañ ko jël placer ko mu jur dara la ca jur la ca juddoo loola moo assuré wér-gi-yaramu ndonga yi lu toll ci ñaar fukki junni loo xam ne dëgmal nañ ko ba fii may waxee ngeen yéen juróom ñaar fukki junni ak lu ko teg ci ay ndonga fi mu toll nii dugal nañ leen ba pare ak euh, ñaari junni ak euh, fukki junni sëriñu daara ak juróom ñaar fukki téeméeri ndeyu daara nga xam ne ñooñu seen wàllu santé wàllu wér-gi-yaram loolu moo leen ko mën a may kon waqf monétaire boobu noonu lu am solo la ab exemple la njariñ la ci képp koo xam ne bëgg ngaa taxaw jullit yi bëgg ngaa taxaw askan bi ba nga xamante ne dañoo def benn plateforme www tiré point waqf tiré sn képp ku bëgg a def waqf yow boo ca duggee am na compte orange money am na weef am na kii yow mën ngaa participer ci dum mu mënti doon ci taxawu doo nga daara yi am na boo xamante ne nii pour ñi nga xam seen loto joxewul seen ginnaaw fexe ba defal leen ay formation professionnelle ngir ñi am seen autonomie seen moomeel bopp boobu duñ yëkkati di yalwaan yalwaan ni mu def demee ci Sénégal dafa doy waar dakaar dafa am benn ONG bu tudd Save the Children dafa def ab gëstu ñiy yalwaan Dakar nee na chaque jour sénégalais yi danañ saraxe ci weccat waxul billet de cinquante mille dollars chaque jour ci ay billets pièces pièces ca Ndakaaru kese bu nit ñi di xëy. waxul sarax yi nga xam ne lii suukar la mbiskit la ceeb la ak yaa ma gën a xam loolu boo ko xaymaa ci weer bi mille cinq cent dollars la un million cent dollars fois trente année bi yaakaar naa mi ngi nekk dix-huit millions de dollars su ma juumul xoolal ñoo lu ñaata yaakaar naa bi ñu ko xaymaa xoolal dix-huit de dollars.

waaye 11 milliards ima ñaata ñaata ci jundool ñu mën a demal seen bopp ci taxawu leen former leen ñi mën a demal seen bopp mën a liggéey la mën a jariñ kon loolu kenn xamul lu mu foo wax fu mu lii nii nga xam ne ñaar fukki junniy ndonga daara ci 2023 bii rek la ak ju fukki junniy sëriñu daara ab exemple la ci képp ku bëgg a def lu baax ba nga xamante ne dala koo yombal ci népp noo ko bëgg a ba nga xam ne ci supermarché yeeg grande surface yeeg lépp dañ fay def ay box nga xam ne yow fa ngay joxe kon loolu noonu lu am solo léegi nag ñi ñëw comme waxtu yi dañuy dab ci état des bi yoonu murit lu fi jot a am ci ay effort ci ay jéego lu toll ci daaw ci ba tey jii nii xisbu tarqiya dafa jot ndigal ci sëriñ Mouhamadul Mountakha lépp loo xam ne am na ko ci ay bien mu def ko waqf ñu tudde ko waqfu xisbu tarqiya nga xamante ne bañ bañ buñ koy turu waqf bi ni muy tudd waqf xaadimul rasul bien bi lépp lu ñu am rek dañ ko koy jox lan moo tax ndax bi may wax xeeti waqf yi mën a am am na lu may tudde waqf d'intérêt public waqf zaatil manfaal ma boo xamante ne nii askan wi lay jariñ waqf boobu noonu boo ko créé mën ngaa wut li ñu tudde reconnaissance d'utilité publique reconnaissance d'utilité publique boo ko xasee ba am yow da nga am ay avantages lépp luy taxe lépp luy lempo lépp loo xam ne mën nañ la koo teg sa kaw gàll la ko dañ la koy teggil ndax yow lu tax askan wi moo la tax a jug mu xaddamatul xidma mën nañ koo jox danañ ci joxe léegi ay exemple kon loolu dafa am solo ba nga xam ne ab entreprise sax wala ab société boo xamante ne nii jël na jël jël dara participer ci def lu baax ci sa waqf bi nga tabaxal moom bu boobaa buy fay impôt dañ ko ciy wàññil bunt yi ubbeeku na bunt yi yemul ci nit ku taxaw bëgg a def wax waaye ba ci entreprise sax ñëpp mën a def waqf te boo xasee ba am reconnaissance d'utilité publique boobu noonu yow boo ba ëllëgee formalité droit d'enregistrement lu bëree bëri dañ la koy teggeel nga xam ne loo amati ci bien bu ñëw nit ñi di la ko jox ci waqf ci cadre waqf bi lépp day nekk gratuit ak ay avantages fiscaux ak ay taxes douanières ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon mbir mi lu baax la pourquoi lu tax ngeen baal ma. waqf war a am doole ci yoonu murid Touba dafa am benn jagle Touba dafa am benn jagle boo xamante ne nii lu fi baax lu ci bëri ñi fi dëkk ko defal seen bopp te ñoo koy taxawul ñoo ñooy génn seen alal di ko ca def léegi nag waqf yàlla dafa dogal dafa ñëw nekk jëmm joo xamante ne dafa dëppoog lool jubluwaay boobu noonu ndax li ñu tuddee développement communautaire ku ne xam na ko te Touba ca kanam am ci taxawaay waqf dafa am taxawaayu ñëw lépp loo xam ne état centrale mënu ko wala tële na ko ci jox nit ñi ay fu ñuy fajoo fu ñuy jànge tali yu baax éclairage ak yeneen ak yeneen luñ mën a jariñoo waqf dafa ubbil nit ñu bunt yiw boobu noonu fu mel ne jumaa jii nii muxaddamatul xidma taxawoo ko tey buñ ne woon dañuy créer dañuy taxawal benn waqf boo xam ne waqf muxaddamatu wala waqf boo xam ne waqf masjidil jaami masjidil jaami Touba comme niñ ko mënti tuddé waqf bobu ma jox lay li gëna a rek ci wéru koor gi ku ne xam na ne am nay borom defkatu lu baax ak ay commerçants yu dajalo jël seen alal ni ke lepp lu fi ndogu ñom ñokoy jël participer ko ñoña buñ taxawaloon waqf bo xam ne waqf iftar saimin lo xamanteni ni af fond la bu taxawal ñi ne ke li lañ ci bëgg taxawal immeuble wala lu mu mënti doon wala lo identifier nañ ko touba mu mëna jur dara ñi taxawal ko formaliser ko mu nekk ci turu waqf jumaa ji am statut dent euh, waqf d'intérêt république loo xam ne leen maslaxa la ama la lu ama am njariñ lay doon ci xadaaral islaamiya lu ko wala sax lu ko gën a jege dafa am lu ñu tudde awqaaful xaramayni sharifayn ca Médine ak ca Màkka am na ci ay awqaaf yoo xam ne ñii ña nga Algérie ñii ña nga Tunisie ñii ña nga Maroc ñii ña nga feneen كنا خمنا في الاستوار أوقاف المغاربة يو خمنا تمرين دفاي أم وقف يو ينونو أم نيو خمنا أي سيكل تجعلنا ولا إنك تخول تمنع يكونتيني دوي بودو جي تبر بنامي سلك نامي جاكي أي تشوناي ولا أي ليجيو نيو خمنا ددو نجبو يعقلا مخدمة الخدمة لمنون منو كفي تخول وقف يو خمنا تنيني لإفطار السائمين ngir nit ñi di ndogu ci jàmm ak waqf boo xamante ne nii ngir entretien jumaa ji ak waqf boo xamante ne nii ngir électricité bi te loolu noonu bu ñu ko jaa lancé woon dama jële la diaspora murit bi waaye tey xam nga dafa am lu ñett yu jafe ci àdduna te yàlla dafa taw fii xale yoonu murit am ko mooy mbooloo alhamdulilah mooy alal ak koo xam ne bu waxee ñépp ne waaw ñett yi ci àdduna ku ko am ñàkkoo dara américain yi seen bëgg lu baax wala sax tubaab bi ak xarbu bi occident bi biñ demee Andalus di jàngi dafa am lu ñu fa jëlee mooy waqf ni muy doxee ñoom ñi dem tudde ko trust wala mën sànq bi may ñëw damay xool li ñuy tudde jaamiatul Harvard mooy jaamia bi gën a am doole ci àdduna bi jaamia boobu noonu dafa taxawal ay awqaaf aw xaafe bi may xool sànq 2023 bii nii chiffre d'affaires mi ngi toll ci 3 trillions 670 mille milliards ak lu teg 3 trillions mooy 3 mille milliards ba muy ñetti yoon ci CFA ak yeneen 670 milliards ci 2023 bii jaamia ba li ñu tuddee cher comme kursi yu dirasaatul quraaniya wala kursi yu dirasaatul islaamiya chaire bu nekk dafa am waqf cher médecine dafa am waqf boo xam spécialement pour di fay jàngalekat ya di yombal bourse ya di gën développer recherche ma joxe exemple fii ci Touba ku ne xam na ne wàllu paju fi amee yitte ak ni ko soxlaa tey bu fekkoon ne taxawal nañ benn waqf boo xamante nii dafa jëm ci dama koy exemple ci fonds waqf monétaire boo xam ne vous créé na fonds ay centre d'autisme ñi nga xam dañoo tawat ci wàllu dégg ak xel mu neex waqf moo ko taxawal waqf boobu noonu ci wàllu jalis dem na ba benn centre ci jalis centre ci jabeet centre ci lu mu mënti doon te loolu du lenn lu dul kii jël fukk kii jël ñaar kii jël ñett kii jël ñeent ñi defandoo ko kon lu mën a mën a nekk la Seydina Ousmane Ibn Affan 1400 ans ci tey ba léegi nii am na waqf am na compte bancaire am bi yonent bi salaa sallam naan man yashtari bi ruraaw ruuma kan mooy jënd teenu ruuma bi ndax julli ñi dañoo amoon jafe-jafey ndox Ousmane jënd ko mi ngi ko jënd ci trois cent cinquante di dinaar loolu di wéy ba tey yàlla def ci teg ci loxo tawfiq waqfu booba dem ndax waqfu ba ay garabi tàndarma ñoo sax ca côté ba dawlal Ousmane bi mu ñëwee taxawu ko Euh, gouvernement saoudien bi ba fi may wax yi ñi taxaw ko waqf boobu ñu dem ba wutal ko compte bancaire bu ñu ko wutalee compte waqf fa def ay millions de rial yoo xam ne dem nañ ba am ci benn immeuble ci watu xaram bi boo xam ne hôtel cinq étoiles lañ ko def waqf boobu noonu ma ngay koon ne 1400 ans ba léegi joxe naa sànq ci Ahmad a Diop te fii ci Touba sëñ Mourtala am na ci ay jéego yu ama ama am solo yu mu ci def ci ay four ci ay bus de transport sénégalais yi sax dem nañ ba baatu waqf ak palaasu maam jaara boobu nga xamante ne nii ñaare bu biis bi di waaj a départ ko amul foo mu def ko wax waqf ñépp a ko mën a def damay joxe exemple weeru safar dugg si na ñi nag tey commerçant bi nee na kat ajjuma lépp lu ma jaay tey lu ma am ci chiffre d'affaires bu ma nee 10 pour cent yi dama koy jël def ci ci bénéfice 10 pour cent yi mën naa koo jël def ko waqf loolu mën naa nekk kañ lay nekk waqf doo ko def benn yoon nag bàyyi. bu la neexee nga ne chaque ajjuma wala bu la neexee nga ne chaque ajjuma ci weeru safar wala bu la neexee nga ne fukki fan safari waqf li tax muy nekk waqf mooy loo xam ne dafay wéy dafay continuer kon looloo tàqale fa ak sarax kon waqf lu mën a am doole ci yoonu murid la kon muxaddamatul xidma am na lu bari lu mu mën a taxawal boo xamante ni nii ci organisation lépp lu jëm ci entretien ci jàkka ji ci Tunis al masjidul jaami al akbar ca jumaa jooju noonu am na 300 waqf yoo xam ne julliti yàlla yi ñoo ko jagleel am na lu ñu tudde xisbul maxaariba boo xam ne fajar gu ne dañ ko fa daan jàng alxuraan ci ay ahzaab dañoo def ay waqf yoo xam ne nit ñooñu waqf baa leen di fay noddkat ya waqf baa leen di fay imaam ba waqfa baa koy fay éclairage ba waqf baa koy financé maintenance ba waqf baa koy financé lépp loo xamante ne nii maa ngi euh, gis ndeysaan taraawiix naafila guddi am na ñoo xam ne dañoo waqf woon chaque année loo xamante ni nii lu ca génne dañ cay jënd bu nit ñi di taraawiix ba xaw a sonn noonu bu ñu toogee lem ak lu ñu ciy def ngir seen yaram gën a mën a sawaraat ak yu noonu kon lu mën a nekk la lu mën a jàppandi la léegi nag loolu lii tax mu taxaw mu wéy ba pare sàmm te kenn du ko mën a faagaagal kenn du ko mën a kii mooy protection juridique bi nga xam ne am na te autorité am taxawaay boobu noonu Touba ca kanam am na taxawaay bu rafet boo xamante ne nii ci loolu laay daaneel mooy lan mooy ku ne xam ne ne Touba ni fi wér-gu-yaram yi eh, eh, eh, war gi wér-gu-yaram mel xoolal université bii nii joxe naa sànq exemple université Harvard ma ne kulliya bu nekk tey jii bu ñu ne woon IFR santé bi nekk ci université Cheikh Ahmadou Bamba bii nii daa am waq fu boppam IFR di euh, chambatul dirasaatil islaamiya am waqfu boppam njàngum alxuraan mi daara ja am waqfu am waqfu boo xam ne dañ koy taxawal ngir dongayee lu leen yi dundal am waqfu boppam kon loola bu boobaa kenn xelu ñëppay dal ba pare loolu day wéy am ñu ko taxaw ba pare taxawu ko mucc ayib am ñu koy saytul askan wi teg ci seen bët xam ne lii kat lu ñëpp bokk na kon exemple yi bari na lool loo xamante ne nii ay mbir la ci yoonu murit waqf gën cee mën a am taxawaay bu rafet gën cee mën a am euh, doxalin wu rafet waqf nag moom ñëpp a ko mën a def du commerçant bi rek ñëpp a ko mën a def waaye nag ci cadre ñu organiser wu teg ko ci cadre bu formel boo xamante ne nii luy njariñ li di law la damay bañ a guddal rek seen champs bi mi ngi may junj na waxtu bi ngi ci kon wa aaxiru daaw ah? ah baax na mën naa kii kon comme waxtu wi kii na ñi am rek lenn luñ joxe ci ay exemple joxe nañ exemple mu xaddamatul xidma lim mën a def ne tey jii nii fu mel ni timis ma Tunisie masjidul jaami al akbar am na 300 institution waqf yoo xamante ne ni au niveau central dañoo am lu koy saytu ba pare xaw koo décentraliser tey jii buñ ne woon Touba ne diaspora bi kat lii lañuy ñuy contribuer ci wax wala waqf bi kat diaspora murid bee koy def ngir électricité ngir entretien loolu doo xaar sax ci kuy joxe déwén kuy joxe gannaaw déwén ku ñëw da cay lalu man lii américains yi def benn université boo xamante ne nii 2023 bii lim def budget boo jëloon pays Afrique yëpp seen budget weesu na ko. yaakaar naa ñun jullit ñi te loola ñoom ci xadaaral ci civilisation islamique lañ inspiré woo mooy loolu ñu tuddee trust mooy genre fondation ci ñoom américain bi nee nañ dafa am culture def lu baax ma ne fii murit bee ko dàq dafa am benn centre nationale des statistiques boo xam ne lépp lu jëm ci wàllu charité def lu baax chaque année dañuy publier ay chiffres niñ organisé woo dafa yéeme ba nga xamante ne nii université bu nekk day fexe njàngam am qualité mel ne kuy jaay qualité boobu noonu gouvernement fédéral université yi dépendruñ ci gouvernement bi pour que ñi mën a fonctionner waaye ay nit ñooy jël di def seen un dollar mille dollars million de dollars seen milliardaires yi am culture boobu noonu ba nga xam ne ñoom ku ci nekk day ndamoo def lu baax nekkat participer naa ci tel fondation ci tel donation wala ci nangam ci lenn université loolu dem na tay ba 2023 bi ni benn université am investissement yo xamanteni ni 3000 milliards 3000 euh, milliards 1000 milliards bami bami bami bami bami bami 1 million 1000 milliards 3000 loolu lañu ñuy trillion moy 3 trillion man sax mënuma koo wax fa bu ñu ko doon nat chiffre bobu non xam nga kon loolu lu doy war la yaakaar naa ne tey bu ñu ko fi taxawaloon fii nii wala tey sëñ Muntaxa ne kat Dakar dama faa bëgg ay immeuble yoo xam ne wax waqf la ngir université Touba wala ngir Moukhaddamatoul Khidma yaakaar naa ne balaa ñoo tëdd da nga gis ñoo xamante ne danañ joxe seen R plus 6 gis ñu ko def ci ay appartement da nga gis ñu ko def ci leneen kon lu mën a nekk la wàllum santé wàllum paj ci xadaaral ya dafa am benn historien bu tudd Ibnu Jubayr nee na ca Damas tey ca Syrie danaan day dox ci cité bu gudd bu yaatoo yaato yaatu léegi fépp li ay hôpitaux la ay centre de traitement la yoo xamante ni waqf moo ko def ñi seen xel wére di sax bu ñu leen daan jël sang leen du di leen jox ñi lekk ci hôpitaux yooyu noonu dañuy dem ba duñu bëgg a tee génnati ndax lan neexaay ba waqf dem na ba nga xam ne nit bu daan liggéey ci kër jànq toj benn kaas ragal ne danañ ko téq ci sareeram wala danañ ko indil ay jafe-jafe waqf ba moom moo koy saafaraal fees gi lii ñu gën a jege dafa am benn mustashriq bu bind benn livre tudde ko les fondations pieuses moom waqf noonu lañ ko déggee fondation pieuse ci seen déggin nee na fees waqf ci assainissement 16 kilomètres yoo xam ne ci ville de Fès waqf financé na ko gouvernement marocain bi daana am jafe-jafe sax ci trésor ci alalam waqf yi daan jël seen xaalis di ko lebal kon waqf ci Touba lu mën a taxaw la loo xamante ne nii muy muqaddamatul xidma muy isbu tarxee ko ni mu ko defe muy Touba ca kanam ci anam bu mu mënti doon man dama naan BRT bee am dakaar BRT ci tuubaa lu mën a nekk la loo xamante ne nii tey bu ko tuubaa ca kanam woon tey jii nii ak benn partenaire bu sérieux nit ñi ñu ubbi capital bi nit ñi mën cee bintu ku ci nekk ne man. damay jënd cent par soixante par yi def naa ko sama moomeelu bopp lu ca génne ñi ma koy jox waaye li ca des moom def naa ko waqf xaadimul xadim mu jëm ci jumaay Tuuba mu jëm ci université mu jëm ci feneen yaakaar naa ne jombut lu mën a nekk la te ci anam boo ko mën a xalaate kon commerçant yi tey buñ ñu woon ne ca marché Ocass am na fa kët wala fii ci tuubaa am na fi lu ñu mën a jëmmal loo xamante ne nii lu fa génne fii ci biir jumaa ji lay dugg loolu mënees na koo def waqf dente public ci turu mu xaddamatul xidma ak ni ñu ko mënti tudde loo xam ne njariñ lay doon damay bañ a guddal jox say cuwaay bu kàddu gi waaxru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin waaw kay jërëjëf docteur abdullahi jaxate ci waxtaan bu am solo wi yaakaar naa li mbokk yi doon xaar ci tem bi ba tànnoon ko tànnoon la itam ngir nga taxawee ko dégg nañ ci yaakaar naa lu kawe njort ci ci wàllu yépp xam naa santaar la bu baax ci ni nga ko jooxee nga xam ne lépp dafa ànd ak ay exemple yu yuñ mën a laal teg yuñ mën a teg loxo loolu lu am solo la waaye fàttaliwaat mbokk yëpp rek ne ni ko docteur waxee donte waxtaan wi am na solo ba nga xam ne li li nga xam ne indi na ko moom du ñu ci jëm a def benn taaliq ndax yaakaar nañ ne leer na te ñoo ko déggandoo euh, li nga xam ne moo ci lañ ci bëgg a sof rek ngir gën a leeral wàll yi nga xam ne yegsiwu ci xëy na xam ne koy wax rek ci dañ koy delloo lu ci gën a bari ci as-sadaqa al-jaariya bi nga xam ne ñun miin nañ ko lool ci suñu téere fiq yi ñu baaxoo di jàng te yonente bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, waxoon ñu ci ab xadis ne ida ida maata al insaanu ida ma maata al insaanu inqataa amaluhu illa min thalath sadaqatun jaariya aw ilmun yuntafau bi aw waladun saalihun yad'u lahu loolu lim njëkk a tudd daanaka mooy tolloog waqf bi docteur Abdoulaye Diakhaté doon waxtaane léegi di wax ne bu fi doomu aadama bi bawoo mboolem ay jëfam moom day jeexaale ndax jëf yi dafa aju woon ci jëmmam ba mu des ñett mooy ab sa sarax boo xam ni comme ni mu ko waxee bi muy euh, def tàqale diggante sarax ak waqf nga xam ne dangaa fa bàyyi jëmm ja la cay tukkee di dem ci njariñul mbindeef yi lu mel noonu yonent bi ku ko def boo fi jógee itam say jëf yu baax dàkkut ndax mbollem lu bax lu juddo ca lola ila yawmil qiyamati dalay fekk fa nga nek moy misal mim joxe ci sayyidina usman nga xamne waqfa bom mu defon ba tay ji mi ngi am di jariñ ay mindeef kon dañuy rafen njort ci ne ba tay ji lepp lu juddo ci lola ci tiyaba rek day wat ci sayyidina usman ba nga xamne bam fi jógee ak léegi junni at yu tegal lu bari la kon day wat solo su reuy si nga xamne waqfa am nako Eh, defe naa itam tudd na fi ay misaal yu baree bari yoo xam ne bu ñu ko dëppalewaatee ak dëkk bi ñu nekk dañuy gis ak dëppoo bu baax a baax gu ci mën a am ndax wax fu moom dafa mel ne jullit ñi daw ñu xaar lu bari ci ci état central ki nga xam ne moo moo fi nekk lu ci bari dañ daan ci nekkal seen bopp rek ku leen ciy fekk fekk leen ci looloo waral awqaaf yi lu ci baree bari ci wàllu ndox ñoo ko daan def taxawu ndox def ay forage ay teen defar ay yoon tabaxi hôpital tabaxi université tey ji université yi gën a mag ci dëkki jullit ñi ay xoof la daanaka nañ ci tudd jaamiatul qarawiyin nañ ci tudd jaamiatul azhar danañ ci tudd itam yeneen université euh, mën nañoo rafet njortu itam ci ne université bii Serigne Mountakha di diwoo taalibe yi foofu rek lay lay mën a dugg bu ko defee lépp loo xam ne ñaare lu état daan def kon moo xam ay hôpitaux la moo xam ay jànguwaay la ay jumaa la jullit ñi état dañ ci daan nekkal seen bopp loolu nag daa doonaat modèle boo xam ne itam buñ miin la fii ci Touba moom daanaka amul dara loo xam ne dañ ci xaar dañ leen ciy fekk rek yi tam ñëw na ci tomb yu am am solo ci njariñ yoo xam ne waqf moom am na ko ak itam perspective yi nga xam ne wala bokk ëllëg gu guñ mën a yaakaar ne mën na koo amal dëkk bi ci tuubaa bu fekkee dañoo delluwaat rek ci li sosoon dëkk bi li nga xam ne itam moo ko màggal moko téye ba mu yegg fi te lu ci bari bari don ay awqaf itam danaka buñ ko ko wóoyee wut itam lu ci bari mom la motax leg bi mi wax ne imam malik dan wax ayna awqaf sahaba saxaaba ñu ñun itam mën nañu wax ayna awqaf kibar al muridiyya ndax seigne murtada ku ne xam na ne xam nañ bu baax baax lim def lépp ci waqf lu ci bare bari ci jëmon ci ay boulangerie jëmon ci ay transport jëm ci lu bare bari lola nak xeyna amna rek luñ ci mëna dolli comme ni ni nga xam ne docteur waxee na ko noonu ndax mbir la moo xam ni ni mu ko présenté daa yàgg di ànd ak jullit bi ci dundam jiitu ak juddoom ak wax na ko hôpital ba ngay ganee ab daan nañu egg ci dëkk jullit ñoo xam ne hôpital ba nit ñi di ganee àdduna ay waqf moo ko fa def école yi ñuy jànge ay fu moo ko fa def buñ noppee fa ñuy liggéeyee ay barab loo xam ne fu lay doon seen salaire fa lay jóge bu ñu fi jógewaatee itam wuy ji seen borom fañ leen di waajale ak fañ di def lépp ci ay waa waqaaf la jógee kon day mel ni am na benn approche holistique boo xam ne mooy mooy feeñ foofu nga xam ne xëy na rek li ci manqué woon mooy cadre juridique wala sécurité juridique boobu nga xam ne itam mel na ne ak jàpp ni am na ci léegi ci Sénégal ba nga xam ne mën nañoo sécuriser bépp wax bu taxawati ba ëllëg lu mu yàgg-yàgg kenn du ko kenn du ko sàkkal pexe kon xam naa ni li nga xam ne daal feeñ na ci waxtaan wi mooy mel na ne amna na ay xéeti waqf yo xamné ci cosaan ñom lañu gënoon min muy lu melni tabaxi juma tabaxi Jangway, dafa ay teen ay forage ay ndox loolu miinoon nañ ko waye nak mu melni ne am yim ubbi wat yo xamné melni ne ne waqf mi ngi dox jëm ci loolu ndax li ñu wax lepp tabaxi juma tabaxi teen day aaje wo borom katan. bu ko mëna def ab teen ku koy gas wala forage ku koy tabax wala juma day aaje wo ku am katan ku am doole alal alal laa bëgg wax kattanuk alal goo xam ne moom la koy defee mu ne nag am na ay modèle yu mel ne cash waqf yii di am nga xam ne kenn ko ne dangay indi li nga am rek eh, kenn ku ne da indi li nga am ba mat li muy mat ñu jëmmal ci loo xam ne day am fu mu jëm ci jëmin ci jëmin wu wér a wér loolu nag effectivement yaakaar naa ci modèle wax boobu lii ñuy woowee fondation xaw ma ci lañ ko royee mel na ne wax na ko waaye niru na ko lool boo xoolee ba ci fondation yi gën a mag àdduna bi tey dañuy spécialisé wu dañuy dañ da ngay tudd UNICEF ñu jëm ci wàllum paj rek tudd UNESCO par exemple mu jëm ci wàllum njàng ak la ci aju mooy ay fondation yu mag a mag yoo xam ne dafa mel ne ci modelu wax bii nga doon wax ci la ñuy inspiré wu waaye li ci dolli ko sax mooy yooyee sax fondation léeg-léeg bu ñu ñëw ci dëkk day mel ne duñ fa indi dara waa dëkk ba ci boppam ñooy financé fond ba ci boppam UNICEF bu ñëwee fii Sénégal dañuy seet entreprise yu mag yëpp ne leen seen fonds RSE yi ngeen am da ngeen koy indi fii ndax ñun ci wàllu paj mi ñu jox leen ko lu mel noonu nag defe naa ne kon euh, ñu mel ne Touba ak ni ñu mel nii mën nañoo taxawal lu mel noonu exemple bi nga xam ne ci lay daanale te mu tudd ko muy bi Save the Children wax ci ne xale yi ci Ndakaaru danañ leen jox lu mat 25 millions par bis parce que 50 mille dollars effectivement mooy tolloog 25 millions par bis ci lu ñuy saraxe ci xaalis nii loolu nag defe naa ne buñ laajee ndax ci at mi 9 milliards la buñ laajee ndax loolu man gis nañ njariñ li bañ ko commencé def ba léegi ñoom étude bi ñu ko defee léegi mën na ay at léegi dañu gis ne demee ne amut njariñ lu looy laal waaye loolu bu ñu ko organisé woon mu mën a jariñ bu baax a baax bu ñu ko organisé woon noo xam ne dañu def ay box fépp rek képp ku bëgg a saraxe weccat def ko ci box yooyu ñu nose ko ba nga xam ne la cay génne comme ni mu ko waxee dañ ci mën a taxawu ndongo yi su boobaa ci seen wàllu col ci seen wàllu nekkin ba ci utal leen ay mutuelle de santé comme ni mu ko waxee ndax foofu la jamono toll ku ci feebar mën a faju te loolu lépp gis nañ ne ay modèle la yoo xam ne yeneen dëkk ñu ngi koy def di ko réussir di ko di ko essayer di ko réussir ci yoo xam ne yaakaar nañ ne wàllu social ak wàllu jàppalante ni mu saxe ci biir dëkk bii di saxe bu ko ci dëkk yooya kon rafet na njort ci ne organiser organisation bu mel noonu bu ci amee rek mën naa am njariñ lu gën a yaatu bu baax a baax a baax ndax lépp loo xam ne mën nga cee tudd 9 milliards ci at boo ko nosee mën naa jariñ lu baree baree bari te loolu yaakaar naa ne mbooloo yu mel ne Touba ci kanam ñu ngi ci dinañ ci xalaat jombut mbolo yu melni mukhadamatul khidma wax nga ko ci lépp lu dem ci sen yangu ndax yangu yu dis la ngi koy gisee lu dis la te yaakaar nañ ne ay waqf yoo xam ne moo leen di taawu mooy taawu liggéey boobu nose ko xalaate ko itam lu mën juddo la ci li nga xamne docteur do nako wax legi lu melni box waqf yo yooyu nga xamne ne ngi koy wax lu melni cash waqf yi di ay concept yo xamne waqf waqfu gën naa yaatu di ca dem te legi mu commencé law fu melni dakaru ay ay immeuble yo xamne lool rek mo koy tax lu cey génne ca location jëm ci ay jànguwaay jëm ci ay hôpitaux jëm ci ay nangam ak i nangam yaakaar nañ ne loolu bu ci bu bu ci murit gi xalaatee kenn gën leen koo jekk kenn gën leen koo man rafet nañ njort itam ci ne eh, xëy na ni ngi ko waxee ñi ko war a dégg dinañ ko dégg te mën naa am itam incha allah li ci war a topp ci ay xalaat ak i sottal dina ci topp incha allah sant nañ bu baax a baax ci joxe gu am solo gi nga xam ne moom nga doon joxe kon waxtaan wi ci leeraay bi di sant itam mbokk yi nga xam ne ñoo koy taxawu muy daairatu muqaddamatul xidma ci taxawaay bi am solo rawatina nag chaîne bi nga xam ne mooy chaîne officielle bi topp daaira bi te mooy MKTV nga xam ne waxtaan yi ñoo koy jàllale di ko tasaare ak mbooleem taskaayu taskatu xibaar yi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom ci loolu nekk ci gox bi ñu ngi leen di sant ñoom ñëpp ci tuuru daaira bi sant goo xam ne itam day ànd ko ñaan ñaanal leen suñu boroom gën a dëgëral liggéey yooyu gën koo sàmm gën koo gën koo ñoŋal dara loo xam ne ak yàq la du ci dugg ci barkeb sëriñ bi xamna li di yëgle itam ne suba ak jàmm inshallah kon tém bi nga xamné mom lañuy waxtané fi moy don naful khalqi wa ahammiyatuhu wa ma wa majaalaatu te moy jariñ mindé fi ak ñariñ li lolu am ñariñ li nga xamné ne jariñ mbindeef yi am na ak anam yi nga xamné manes nako ko manes nako ko défé defee nak serigne Abou Mbacke bashirou Mor moo koy amal suba ci waxtu wi muy ginnaw takusan ba timis inshallah ci la waxtaan woowu di am bu ko defee képp ko xamné bëgg na ko fekke si waxtu woowu kon mën na koo teewe ñu ko bëgg a topp itam ci taskaayu xibaar yi mën nañu ko topp ci chaîne yi ñu tudd léegi di ñaan suñu boroom docteur gën leen a dëgëral te lii ngeen doon def lépp mu def ko fi misaani xasanaatikum incha allah di ñaan itam mu gën a sàmm daayira bi gën ko taxaw di ñaanal mbokk yépp di ñaan Sëriñ Muntaxa gën fa yàgg te wér wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu أهلا وسهلا وترحيبا بنا عدتي يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بنا عدتي يا خير ضيف أتى بالبشر